اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما waa di wax ni rek naka jekk rek moom la ñuy faral di ubbee bis bi mu di taxawu njàngum alxuraan ci wàllu kaamil yi ñu fi jàng nag ci limo ci subaak léegi limu na waaye lépp rek dañ koo jëmale ci jagleel ko mbooleem ñi nga xam ni ñoo waral bis bi ak maam yi nga xam ni ñoo fi nekkoon sañc dëkk bi def ko tamit muy àddiyee Sëriñ Tuubaa mu def ko tamit àddiyee Yonent bi sallallahu alayhi moom mi nga xam ni moo tax ñuy màggal bis bi waaw ci loolu nag ba tey ñu ngi ci fasaale ñi nga xam ne ñooy taxaw bis bi ba mu agsi fii mu agsi loolu nag mooy maanaam sababu ubbee bis bi ci alxuraan ginnaaw bet lépp lu ñu fi jàng ci xasidaak tur yàlla rek dafay duggaat ci mbirum fi des ma wax la xar baax yi la naa sarat sarat sarat guddi juddu Mustafa njool ma kay Allah لنا سارت سارت سارت سارت guddi juddu Musa Njool Makka Yàlla déglul ma wax la fi xar baax lana saarat saarat saarat guddi juddu Musa Njool Makka Yàlla ak euh, yan xeeti ndékki moo fi nekk ak ak euh, nan ngeen fas yéene taxaw ci gan asalaamaaleykum wa rahmatullah di waxaat alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf Serigne Touba santaat yàlla rek bu baax comme ni ñu koy defee at yëpp sant Serigne Touba sant suñu waajur wa borom Badar moo waral lii lépp comme fekke waat nañ ko suñu borom may ñu fekke ak tal dañ ko ciy sant bu baax comme ni ngeen ko gisee rek yaakaar naa yokkute moom du lu ñuy wax lu ñuy gis la si bët at mu jot rek day yokk ndax yéene yi fi mu toll mën-mën yi eggagul foofu moo tax at mu jot rek lu waaye mën rek day yokk ay ay jéegoom ñu ci sant yàlla bu baax a baax a baax ñu nekk fii ci kër waañu kër sëñ Cheikhouna Gueye mu toogal fi alaaji Sëriñ Gueye ñu koy ñaanal suñu borom guddal fanam lool guddal fanam lool ndax dalal na suñu xel dalal na suñu xel lool dalal na suñu xel ñun amuñu payam li ñu moomoon mu jàppal ñu ko téyel ñu ko bañ sañcee def dara rek moo tax amuñu fayam dañ koy ñaanal suñu borom guddal fanam bàyyi ko borom badal mi ñuy liggéeyal te am na fay ndax wóolu nañu ko comme ni ngeen ko gisee ndekki yaa ngi nii te añ bi tamit mu ngi ñëw te luñ ci def ren rek lu ci def rek xeeb na ko ñaan nañ yàlla bu déwénee mu yokk ndax ni meloon daaw ak ni meloon ak ni mel rek ku gis xam ne du benn loolu yëpp ñu ci sant yàlla bu baax ñu ngi leen di sant bu baax di sant ñi ñëw ñëpp ci coono bi di leen ma saw ndax Badar sori na te ruqe na te at mu jot rek nit ñi di gën a yokku di ci wane positif ak seen doole kenn mënul dara ñooñu jàppale la yeeg taalibeeg ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar ñoo ngi fii tey ci kër naa euh, Cheikhouna Gueye Badar mi xalifa yi borom Badar di ko ñaanal suñu borom mu may ko kàttan ba yéene yi mu am ci yoon bi suñu borom may ko mu mottali ko ci bàkkeeb Serigne Touba. comme ni ngeen ko xamee fii lañu nekk tey ji ci kër Serigne Cheikhouna fii la dalale gan yi image yi ngeen gis yëpp mooy xeetu bernde yi nga xam ne moom la ñuy sëriñ bi digg pour ñu mën koo def ci bis bi incha allah pour fas yéenee dalal gan yi teral leen ñu ngi nii ci préparation yi ndekk yi nag fii lañ nekk nii ci njiital soxna ma Asou Gawane ngay Badar si mu talaa yow tamit ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu sa groupe bi nga àndal gis nañ liggéey bu am solo bi ngeen di def chaque année ñi ngi ñaan suñu borom yokk seen seen bi ba fépp ñi fi ñu déggee seen yu mag yi ñu dégg leen ko ci barke euh, borom guddi gi jërëjëf من غنى شكرا وأرتجي منه في دارين أبكارا شكري لرب كريم من كان سكارا وأرتجي منه في الدارين أبكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت كوني سعيدا وسكرا وذكارا وجهت وجهي في سهر النبي سندي للأكرم رفيع وهاب زكاه فجهتني ربي بالآلاء هب لي أن أعود للبريرود لكل من بارى على النبي سلي بي تسليم أبكارا على النبي صلي بي تسليم بالكرامة وارفع وزدني ci sëriñ ngay dolli ci ne njabootu kër sëriñ ba sax ba ci mbalitu kër sëriñ ba sëriñ la nun nag loolu lan nu mas di jàpp li tàmbalee ci Cheikh Abdourahman mii jaare ci Serigne Fallou Cheikh Abdou ba ci sa jëmm ji kun ci gis rekk alaaji sëriñ Gueye la ci ñun li tàmbalee ci soxna màgget ci ñuy jigéen jaar ci maam Assou soxna Gueye ba ci soxna Ami kuñ ci gis rek alaaji Serigne Gueye la ci ñun te jamono bu nekk rek ñu ngi gën a gis loolu ci ñoom di ko yëg ci ñoom sama borom may leen fan lu gudd ak wér ba yaakaar googu ñuy am ci ñoom gën a dolliku di sant bokki taalibe yi ndax walla ay eh, boobu ba léegi seen pas-pas day gën a dolliku jamono bu nekk rek kenn ku nekk lay sa yéene mooy lu mbooloo mi soxla yow yaa ko war a def rawatina xale yi doon yëkkati xaside yi ñu dëkkee sow ñu jamono bu nekk ñuy sol seen dàll dëgmal diine rekk liggéeyal sëriñ Touba rawatina ci xasaayit am yar ami teggin nangu gëstu ci seen diine te di ko dunde ñu di leen ñaanal sama boroom ndolli leen jàppale gàttandul leen boppam seeni wayjur yi nga xam ne ñoom ñooy cëslaay li nekk ak ñoom ci daara ji jamono bu nekk ñu leen di wax bëgg-bëggu sëriñ bi ci ñoom ñoom itam sama borom jàppale leen sëñ Moussa Niang mii Pape juuf Idi Amar Koutaay Abdourahmane ñoom ñëpp sëñ Saaliw ak Chérif wax dëgg yàlla jàpp nañ ci liggéey yu jàpp nañ ñu woo xamante ne sëñ Ousmane xam nañ ne fa mu nekk xelam dal na nuy ñaan sama borom dolli ay leeram ndax moom moo ñu xiirtal ci lii ba ñu toll fii kon fépp fu ñu ci toll rekk di yëg suñu bopp ci liggéey bi moom dinañ ko fàttaliku sans borom dolli ay leeram ak mboolem mbokki taalibe yi mu fi nekkaloon te ñu jiitu. ndaxte ku fi teewoon 2006 si gàmmu gi mu dëppoo gàmmu yi nga xam ne jàpp nañu sëñ bi moom la def si saaxir ak ren jii ah di nga xam ni yokku na kon yàlla gën a jëm kanam sëñ bi nag nee na ñu fas yéene soññante suñu biir ak taalibe bu ñëwee ak taalibe nag njullit dugg na ci biir ndax lépp jullit mooy ak taalibe rek lépp taalibe mooy ak jullit. kon nag muy jaamu yàlla liggéey nangoo bennoo di dimbalante te yàlla tax te nëbbante ay ayib te fonk waajur yi ndax loolu mooy base génn ñu di la tagg ne bu baax nga te seen kër respecté woo say waajur du bëggu sëñ bi kon nag ñu gën a fonk waajur yi si ñi ma ko sañ wax muy sa tuutànk yi ñu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla ak liggéey ndaxte boo boo jaamoo yàlla te nangoo liggéey sa jaamu yàlla day des waaye boo nangoo liggéey mën ko booleeg jaamu yàlla day sa jaamu yàlla day mën a ñoŋ kon nañu fas daan suñu doole lu ñu am ñu doyloo ko te tegu ci yoonu siraatal mustaqim ndax mooy bëggu sëñ bi bu ñu ko defee dañuy noppal sëñ bi ndax sëñ bi kat li ko war mi ngi ci ndaxte ku ne xam na ni li fi sëñ bi bàyyi woon muy badar gi ak daara ji mu ngi ci xaaru ci kenn lu ci waay def mu jàppale ànd ak moom liggéey ko waaye lu ci waay defule moom mi ngi ci kon nag ñun fu ñu mën a nekk la noppal mooy ñu tegu ci li nga xam ni mooy jaamu yàlla ak liggéey ndax mooy bëggub sëriñ Touba te mooy bëggub Cheikh Mouhamadul Mountakha mi di sëriñ Touba fii ci kaw suuf kon nag ñu mbokki taalibe yi ñu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla ak liggéey ndax mooy sëñ bi di ñaan gàmm gi lu fi waay jëf ak yéene ju waay am yàlla na ko suñu borom ful ñu fekk ko ay at yu baree baree baree baree baree bëri te at mu jot euh, kaweel suñu maanaam gën a euh, gën a kawe yu weesu loolu daal ñu ngi ñaan ndax fi ñuy waxee fi mu toll ni suñu xol moo fees ñu ngi waxee tamit yéene di ñaanal suñu kilifa suñu jëwriñ doon sa usmaan Ndiaye xam ni ginnaaw yàlla lu ci bari ci moom la jaare mu toxi ñu ba tey ñu mën a toxi xale yi ñu mën a tegu ci yoon bi kon yàlla na yàlla yeesal ay yërmande ci kawam ak ñam fa fekk ak ña fekk ci ginnaaw gi di jégalu ci kàddu yooyu daal di sant bu baax a baax a baax di leen ñaanal ndax fu ñu toll ñoo yéen ñoo ànd liggéey bi kon képp koo xam ni euh, maanaam am nga ci borom kër yàlla na suñu borom booleeg sa borom kër njaboot gi ngeen am mu barkeel ku ci amagul borom kër yi yàlla na la yàlla jox borom kër gu baax goo xam di ngay mën a ànd jaamu yàlla moom la ñuy ñaanal ñëpp di ko ñaanal tamit góor yi maanaam ñi si amagul soxna suñu borom may leen soxna yu baax ñi si am soxna tamit suñu borom boole leen seeni soxna ñu am njaboot gu barkeel ñu mën a ànd nag liggéeyal Sëriñ Tuubaa kon fu waay toll na tàllal te fas li nga soxla yàlla leen balaq leen balaq dem leen maskaw yi am coono yi ni ko sëñ Omar mi waxee rek dañoo wax ni fekk muccut ndax fii tey di bala man mii di wax ak yéen dama juróom-benn net juróom-benn dama sëñal fii sama wajur fa indi ma fii teg ma ci loxo sëñ Ibrahima Diop sëñ Mbodj ma ji ma toog fi fukki at ak benn am fi alxuraan li ma fi am ci alxuraan sama lépp bari gi la ma ma fekk ah, lii nag moom ci gàttal sëñ Xaadim sunu doom fii bàyyam fii la nekkoon wax naa sëñ Moussa ni ko li ma fekke woon fii ci dëkk bi may gone ak léegi waxuma sëñ Mor maam Mor maam Mor Asta Gueye bàyyi Alaaji sëñ Gueye waxuma ko waxu maam Mor Omar Gueye de bàyyi sëñ Mor Talla waxaale may nax fekke ma leen waaye li ma fekke sëñ Mor Alima ak tey jii man naa defar dëkk bi war naa mën a defar dëkk bi war naa mën indi lu bokk ci dëkk bi kon ko fi ñëw te na nga xam ne dikk nga ci cërub sëñ Tuubaa dikk nga cërub lislaam dikk nga ñu baax lu fi waaye ñaan man naa nangu loo fi yéene yàlla mën na ko yeggale kon nag yàlla na ko suñu borom dimbali lu fi waaye wax nga yéene ko wala nga bëgg ko yàlla na ko suñu borom laqal na ko yàq yëggul te ñaan ñi fi nekk tey suñu bàyyi suñu moro bàyyi leen bañ su seeni maam ay fan muy sëñ Xaadim mi ak sëñ Moustapha mi ak sëñ Seexu naa ñi ndax samay doom lañu maa kii ni ay na fi bokkan nekk ñoo ma féetewoo nag mu waaye nag samay doom lañu kon man dama leen dénk leen baax dafa ma ne gone mën naa mën ko dénk bu ko gaaw a sant dee ko ñaanal yàlla yóbbu ko fa mu bëgg mu nekk defal ko li mu bëgg mu am ko kon nag yal leen fi yàlla bàyyi bàyyi fi njaboot gi bàyyi fi bokk yi bàyyi fi taalibe yi dafa leen jàmm dafa leen lislaam dafa leen di ak bëllëgi mbooloom fi nekk itam noo ngi leen di sant leen di gërëm ndax li war nu bokk nekk fii mu ko war waral kenn ku ne fi ne bàyyi nga tukki soxla dikk waaye nag def nga ko jar jënd nga ko lu ko jar jënd nga ko fu ko jar itam muy dëkk bii waaw kon nag asalaamaaleykum wa rahmatulah ndax lu baax moom du jox mukk yéen siyaare yéen ñëpp itam kenn ku ci nekk ñu ngi lay siyaare euh, di la nuyu ci sa tur ak sa sant di la sant bu baax itam ci teewaay bi nga xam ni teew ngeen ko ci dëkk bi ci turu Serigne Khadim Gueye mi nga xam ni ah moom ngeen fekk si fii ci dëkk bu sell bi ci bis bu tedd bii kon nag sëñ bi nee na mi ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm te gis na seen taxawaay te rafetlu na ko lool. Seydina Muhammad malaaka yaa ngay dagaan pour yàlla ngir bëgga ramadana fi samaa wal ardi yàlla malaaka yaa ngay dagaan pour yàlla ngir bëgga ramadana fi samaa wal ardi yàlla Seydina Muhammad malaaka yaa ngay dagaan yàlla ngir bëgg madana fi sama wal yàlla malaaka yaa ngay jaga yàlla ngir bëgg madana madana fi sama wal yàlla Muhammad malaaka yaa ngay jaga yàlla ngir bëgg عهدنا بسمع والأرض الله ملاك يا غيتك بري الله غير ببنيو أمدنا وغنا بسمع يونير يا غنا ربنا واو ورنا لنا ملو واو الجوانب والآفاق bur yàlla mu doonu ngir yaa nga naa rabbuna rabbuna na leen milo milo juwaani bi walla afaax yàlla malaaka yaa day daga bur yàlla ngir bëgg ñëw mu doonu asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw mu sant yàlla borom bi julli ci bi alayhi salaatu wasalaam di sant seexul xadim si amat Ahmad Bamba xaadimal Mustafa ba léegi ñu ngi ci bis bu tedd bii ñu doon waxtaane léegi ci bis bu màgg bii waaye di bisu gàmmo di bisu fàttaliku juddug yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam te mag ñu baax ñi kenn ku ci nekk defan ci jëf yu rëy ba mu ñëw ci alay sëñ Gueye mu mel ni nag loo xam-xam sàmba demb gën laa xam sàmba jëmm ji ñu jàkkaarloo toog ak moom di nit ku yàlla baaxal di sa jaxada ku miin alaaj sëñ Gueye boo ko gisee fàttali na la lu bari ci alaaj sëñ Gueye waaye ku xam alaaj sëñ Gueye boo digloo ay kàddoom wala nga toog ab jitaayam dalay lay fàttali lu bari ci alaaj sëñ Gueye mu jëmb joo xam ni dund na ak alaaj sëñ Gueye dundin wu rafet ba alaaj sëñ Gueye dem mu wëlbati jëlaat dundin wooye ànd ko ak njabootu alaaj sëñ Gueye di waxtu wu nekkit muy dagg yëppam ngir ñëw Badar ànd ak njaboot gi di dundal li nga xam ne moom la fi alay sëñ Gueye bàyyi kon nag xam naa dañuy wàccee suñu kàddu jox Serigne Diakhaté mu wax nu solos bis bi ak digganteem ak alay sëñ Gueye. ah asalaamaaleykum Serigne bi ñu ngi lay sant bu baax ah, laaj nga ma lu ma sawar de laaj nga loo xam ni moom wax ci daf ma yomb lool ngir du ma ne xam naa jëmm ja miin naa ko la ma miin ci mooy pas-pasam. pas ba pas pas ba la kenn mënut a xiyaas nit mënu ko nat ndax euh, dañuy wax ne inna yawmal fasli kaana miqaatan yawma yunfaxu fi suuri fa taxtuuna afwaajan waaye am na bis yu dul raaf am na jëf yu dul raaf am na bëri bi dul raaf bis bi nag ci la bokk ndax euh, gàmmu la daam dëgg la waaye moom dafa am mu demee yonent bi li may wax bis bu nekk rek ku ñu waajal la ku ñu yónni la ku ñu liggéey loolu la ci borom ndimbalu yàlla yi mag yi ci la bokk ñun de xartoowu ñu dem fenn waaye béréb bii ñaan naa suñu borom subhaanahu wa tànk maa ngi koy man ma fi teg sama tànk ba suuf suufu Badar ñëw ni teg naa fi sama tànk ngir jëm yi katamate comme seen géej jëmm la joo xam ne nag boo ko bëggee gàttal da nga naan ci waa kër Sëñ Tuubaa la bokk ci waa kër Sëñ Tuubaa nag du du du du sant pas pas ba ko booleeg seen bi moo ko booleeg yàlla moo ko bëgg Rasulullah sallallahu alayhi bis bi ñëw fi ndimbalu yàlla la. ñëw ba dara ëgsi ba dara yéeg ni bisub ramm la nga nga gëm ko loolu day dimbali nit euh, ni nga ko waxee rek la bàyyi la ci man xarit la ci man lépp la ci man dund naa kook moom ci lu nëbbagul feeñ daana wax naa sëñ Tuubaa li ma boole yow naa la sóob ci géeju bëgg sëriñ Tuubaa nee na loolu la ma sëñ Tuubaa boole woon ak moom euh, te matal na ko sëkk euh, waxtu jot nag ma fekk sëñ naa Guèye mu téye ñu yan bi di wéeg moom ak rakam kenn gisul ci moom lu leen di xebe waaye nag euh, kan nungul Ceerno Ibra Faati nungul sëñ ma nummee mënu nga laaj sëñ gi Badara Cheikhul Khadim ku ko jëfal mu fay la te saa su ne ginnaawam di di dàq kanamam yomb na ka taxawu ñëpp fu dara am moo ko fa mu Cheikhul Khadim moo ne fii kon ñu ngi koy ànd ak yéen di ñaan suñu borom mu def dafa ñu riddan ak rahmatan barakatan yow ngay ku baax nag di ko baax a baax a baax a baax a baax di nit ku wér nag li ngay wax moo ne ci yow ndax fu ma demee ci njabootu ala sëñ ma lay fekk nga toog te saa bu ñuy ab taalibe ngay doon kon ñu koy ànd ak yéen ñëpp rek di ko ànd ak njaboot gi ba kenn ku ne la ci yéene sàmbaroon dafa lu kawe sa njot sant nañ bu baax a baax a baax sàmbaroon dafa ñu toog fee bakk Cheikh Ousmane jërë ngeen ndax dañ doon laaj tuuti ci alaaj sëñ gi nan la daan dundee ci wàccaayu gàmmo gi waaw moom bu xisaan bu xisaan jóge ci màggal bu xamee weeru gàmm tara na ci jëmmam nga koy xamee ndax day xam ne amul ludul moom te fa luñ ko dimbalee moom liñ ko wan ci gàmm gi dina wax ne gàmm gi badar gii la ko Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ganesee nee na bi muy génn di ko gunge xar kanam gi la seen kon moom am na nu mu demee yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis bi daal bu doon jub si dina xam ni bis bi bisub tay la bisub ëllëg la ku mu toogal bëgg na nga ñëw badar la ko ci digg na nga moo ko xam xam naa ne lu ko ñoroon la lu ko fonk la lu mu gëmoon la waaye fu mu tëdd tey ne fa tey di xool bis bi xam ne ñi mu ko bàyyi woon tey nañ bis bi daal ni mu demee yéen ñëpp ko gisandoo nii waxtu wu ne ku teew xam ne dëkk baa ngi dox li wër dëkk baa ngi dox li koy waral nag mooy bis bi foofu daal la mën a yem ci bis bi <laughs> yàlla sabar noonu jërëjëf eh, jërëjëf sëriñ Jaxate mm, ah, alhamdulilah rabbil alamin lu nu bëgg na dégg dégg nañu lu nu bëgg na dégg te doon ko sàkko dégg ala sëy dégg nañu ko ndax yow li ma la wax rek mooy saxar kanam rek day fàttale lu bari ci àla sëñ géej ñu ngi lay sant di la ñaan li jàmm jànd ak xéewal fan wu gudd ànd yàlla gën a taxaw ci bàkk sëñ Tuubaa di sant bu baax nag ci teew biñ teew ci barab bu tedd bii di Badar mm. ñu fi ñëw nag ci ndigalul Serigne Sidi di mu Cheikh si Lahad mm. mu ne woon bu ñëwee nañ ko fi teewal ñun mm. nag tuuti nañ ci teewal ko fi waaye nag kenn ku ne boo ñëwee ci daraja yi kang fi teewal rek ngay ñëwee waxoon ne bu ñëwee nañ ko fi teewal te siyaareel ko mbokk yëpp dinañ xamal ne bis bi moo yéen yéen a ko bokk amati ji nag mbég mu rëy rëy mm-hmm. ci daraja ji ñu ko darajalee sëñ Abdou Lahad mm-hmm. mu ñaan mag ñi nga xam ne ñu jiitu ñëpp mm-hmm. yàlla suñu borom dool leen ay leer ak yërmande waaw bis bi nag ñoru na ko lool ndax keroog bi ko soxna maam Faama mi ñëwee wax ko ko ne ko soobee yàlla de bu fekkoon ne ma ma sawar naa maay ñëw waaye nag dinaa yable sëñ Cheikh Mor mi mu teewal ma fa waaw moo tax ba démb nag mu ne woon naa ñëw teewal ko fi ci bis bi di ñaan ci barkeb Sëñ Tuubaa ak Cheikh Abdou Lahad lépp luñ fi ñaan yàlla na ko suñu borom dajale te yéele ko yool bi ci mag ñi nga xam ne ñoo sancoon dëkk bi waaw di sant nag soxna maam faam yi bu baax a baax a baax ndax moom diggante yi sëñ bi kenn ku ne xam na ko moom léppam sëñ Abdou Lahad la te yàlla boole ko nag mu bëgg sëñ bi lool fonk sëñ bi lool ba yemaliwu ko dara ndax lii rek ab cër la ndax man yàgg naa ak sëñ bi xam naa ko bu baax a baax a baax lépp loo xam ne lu ab bi di def rek kenn mënu ko ci moo tax sëñ bi ne woon boo demee na nga jaar ci moom mu yóbbu la ci sëñ Seexuna ak kilifa yëpp nga siyaareel ma leen ndax ñëpp xam nañu ku ma xam rek xam ma si Abdoulaye koo def référence ak sama baay bi Alaaji Sëriñ Gueye maa ngi ñaan saa borom yokk seen leer maa bis bii ñu ne ñu tuddee ko si Abdoulaye dama ñëpp ñaanal sëñ Sidi Abdou Lahad moom atima asawaalo ya téeméeri at ak fukk ak benn yu ànd ak wér ma ñëpp ñaanal sëñ Sidi mu yàgg sama sëriñ sama xarit sëriñ sëñ Sidi Abdou Lahad fépp kuy waajur di féete doom féete na ma féete na ma fépp féete na ma sëriñ féete na ma waajur sëñ Mor Fall mi nag ne ko ñëpp xool mm-hmm. mënoon Cheikh Ibra Fall la doy na sëkk mm-hmm. ab mm-hmm. na ni Serigne Touba la ndax Cheikh Abdou Lahad mooy Serigne Touba mm-hmm. doy na sëkk diisaay waaye loolu lépp da koo jaay njureel gi jënde ko taani sëñ Mor ku baax saa borom yàggal ko fi defal ko wér ak wér la defal ko xëy sant naa baax a baax sama xol seet ndax badar yoon wi dafa metti ku ñëw rek yëg la waaw moom nag ñu sëñ Sidi yebal maa ngi koy saa borom defal jàmm ak xéewal hmm. ci barkeb si Abdoulaye mi sama xol seet na guy daal ginnaaw bu sant yàlla borom bi julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci sant seexul xadim Cheikh Ahmad Bamba Xaadimal Mustafa di ñaanal bu baax sëriñ Muntaqa imdu Cheikh Mahamadul Bachir imdu Xaadim Rasul ko ñaanal fan guddaan ak wér waaye di ko ñaanal mboolem jabu seexul xadim gépp di sofa nag ci ñaan yooyu sëriñ Seexuna Gey xalifa alxaaji sëriñ Gueye ko ñaan sun borom gën a guddalaaw fana may ko ak wér ba yéen yëpp àgg waaye di ko ñaanal bu baax soxna Aminata Gueye mi nga xam ne mooy taaw alxaaji sëriñ Gueye ak mboolem nag njaboot ak alxaaji sëriñ Gueye gu góor ak gu jigéen mag gu ndaw waaye di siyaar bu baax nag borom ëtt bi ñu nekk muy sëriñ Moustapha Gueye moom sëriñ Mor ak suñu xaarim Gueye mi nga xam ne moom lay yàlla dogal badar gi ne ci loxoom ak mboolem nag ñin ko bokkal ñépp di njabootu maam Tayba ak mboolem njaboot gi ñëpp ñu taxaw fii nag ci Badar di dëkkub lislaam waaye di dëkkub nitu yàlla ku màgg waaye di nitu yàlla ku bari woon baatin di nitu yàlla ku wan bari woon njariñ waaye di ko nitu yàlla ku bari woon xam-xam mam maam muy faat ndaw mi nga xam ne moo sanc dëkk bii di Badar maam Mayib nag nit ku baax bala nga wax ay jikkoom da wax fi mu bokk maam Mayib maam Makumba Gueye la baayam tudd Makumba Buye la baayam tudd Buye Seer ak Sanger la baayam tudd ma car saam nger mi sanc njaxteg Seer la baayam tudd waaye maam Mayib mi dëkk sanc dëkk bi Faat Ndaw la yaayam tudd Mayib Assane Dere ko jur Madun Balla ko jur Sambay Bioba ko jur kon muy mbokkum réew mi ci fànn yëpp ku baax ci réew mi mu doon sa mbokk waaye sun borom defan ci moom muy nitu yàlla piir koo xam ni badar yi ngay dégg Sénégal yëpp moom maam muy fànn moo ko sanc waaye dëkk bi bii nag di badar mi ngi ko sanc ginnaaw bi mu jógee badaru ndaay gën a ginnaaw Kébémer suuf si nag waajuram wu jigéen moo ko donn woon ci baayam waaye bi muy wër màndargam ragal yàlla mi ak di wut foo xam ne dafay rawali diine di wut foo xam ne dafay jàngale ay dongaam ci nit àdduna yi soreek ñoom loolu moo taxan mu ñëw fii nag ci Badar tudde ko Badar bi mu ko sancee nag fi la jàngale góor yàlla yu mag yi nga dégg ci réew mi yi ci ëpp yëpp fii la leen jàngale yàlla dogalan nag liw tax ñu naa sëriñ Badar mooy sëriñ bi mu doonan doon boroom xam-xam di jàngale waaye aw turam abibulaahi la tudd abibulaahi mooy turu maam muy faat ndaw mi sanc badar gi wax na ni dajakaayu góor yàlla yi la loolu it waxtu wu nekk nga gis ko ndax li nii ñàkk gan guy kilifa du néew la mboolem kilifa yi li ci ëpp lépp ñëw na bi rawatina nag njaboot seexul xadim ndax seex Muhammadul Mustafa al Karim ñëw na fi ay yooni yoon teen bii fi nekk sëñ Moussa moo kë rëdd ci ci ci kaalaam am na lal bu nekk fii ñu di ko siyaar lal boobu sëñ Mouhamadul Moustapha Mbacke moo ci daa toog Cheikh Mamadou Fadal ñëw na fi ndax ker bi teen bi bënnee Cheikh Mamadou Fadal moo ci ñaan waaye Cheikh Abdoul Ahad ñëw na fi Cheikh Mamadou Basir nag këram la woon dafi daa ñëw waxtu wu nekk Cheikh Abdoul Ahad min ko duppee waxtu nekk nag dafi daa dikk ñëw na fi ay yooni yooni yoon waaye yoon wi nga xam ni moo gën a mooy kero bi Matar Boury Dieng suñ Matar Boury Dieng nelawee te mu ñëw di siyaasi mboolem jaboot gi ñëpp kero boobee ñëw na fi kero bi mu ñëwee la mag ñu bari jébbali ci moom rawatina nag ma Samba Anta mi nga xam ne moo jur sëñ Baye sëñ Gueye mi nga xam ni mag ñu bari moo leen jàng alxuraan kero bi mu sëñ ma Samba Anta nelawet ñëwaat na fi kero bi mu fi ñëwaatee ci la jël Baye Fallou Gueye ak Euh, Baye sëriñ Gueye mi nga xam ne moo jàngal mag ñu bari yóbbu leen Daaru Salaam bokki kon dëkk bii dëkk la boo xam ne yàgg na ci diine waa yàgg na ci ngor waaye yàgg na ci nit yàlla yi kenn ku ci nekk mu doonan seen wàccuwaay maam may moom nag daanaka moo meññ ñu bari ndax moo meññ sëñ Ablaye Gueye euh, ma nekk Tëngéej doonan na fa mu xaddam bu mag ba mboolem kilifa tiyaan daan nañ ko fekk loola nag kóllëre bu doxan diggante Alaaji Maalik la woon ak mam muy fàndaw waaye moo jure nit sëriñ Omar mi nga xam ne moo jur baay tay ba kër gu mag ca njaareem waaye moo jurit sëñ mortaale mii di wettali ko ak mag ñu baree bari xam naa temps bi moon ko du may waaye moo jur maam Mati Gueye mi meññ sëñ Ablaye Diané wàllu Kajoor waaye moom meññ maam Binta Gueye mi jur sëñ ma Demba Ndiaye ak sëñ ma Lamine Ndiaye waaye moom meññi sëñ Mor Asta Gueye mi jur Alaaji Sëñ Gueye ak Baye Laat mi nga xam ne tey jii dëkk bi ci loxoom la nekk ak mboolem ñi ko bokkal ñëpp. ndax bis bi sëñ Tuubaa moo ko joxoon sëñ Omar ni ko dee leen gàmmo fa Badar waaye sëñ Omar fonk gum fonkoon sëñ Tuubaa ak fonk ndigal sëñ Tuubaa waaye fonkit nag sëñ Tuubaa waaye fonk ki jëm sëñ Tuubaa loolu moo waral du sëñ Tuubaa joxee ndigal li moo sàkkoon sëñ Tuubaa ni ko man de Mbàkke dama bëggan suñ ko mënee am bu nu gàmmoo bu bis bi dee si ñu gàmm ko ci Badar mu ko am nga ci dëggal loolu moo waral suñ gàmmoo bu bis bi dee si ñu gàmmo si Badar bi yàlla doolee nag loola mu daan ko def muy gàmm gu xumb goo xam ni mboolem tund yi gàmm gi moo ci gën a ndaat xumb kilifa gu nekk it nag ñëw na ci gàmm gi mag ñi buñ musaana jóge njaareem dañ daan dox li ci ëpp waaye buñ musaana dox ba bis bi dee si dañuy dox dañuy ñëw wada ànd ak sëriñ Moras ak sëñ Omar ci màggal ko ci gàmm gi yàlla dogalee nag mu jóge bi sëñ Moras sa taxaw fi taxawaay bu rëy boobu ma la doon wax mboolem tund wi kenn ku nekk nungul ko mu daan koo gàmmoo waaye ginnaaw sëñ Moras nag demal na ba gàmm gi mel ni lu waaye alxaaji sëñ Gueye ci ak baaxam ak gis-gisam ak ragal yàllaam ak it lu sun borom def ci moom moo indiwaat nag gàmmu gi taxaw nag di ko gàmmu alxaaji sëñ Gueye nag jariñ def ci lu ne woo ci ku ne dundal ko ci ana anam bu ne waaye teraanga ju nekk alxaaji sëñ def na ko ndax loo ko musaa jox ci weeru gàmmu dala naa yut ma ko badar loo ko musaa wax ci ay aajo dala naa ñëwul badar boo ñëwee faju alaaj sëñ moomee nag suñu borom dafa defoon ci moom ak jëmmam loo xam ni fu mu mos a wàcc foofa doon tëbas waaye suñu borom dafa defoon ci jëmm mi lépp lu mos a metti bu ca tege loxom mu sedd loolo war ñu daa wax alaaj sëñ Géey raay mu sedd waaye alaaj sëñ Géey raay mu sedd jooju daa am lu mu ko ndax alaaj sëñ Géey baraana ci réew mi ñoo xam ni yàlla nattoo woon na leen dun am doom alaaj sëñ Géey moo leen ñaanal bari na ci réew mi ñoo xam ne amoon nañ jafe-jafe yu bari yoo xam ni kenn ku ci nekk ba nga ñëwee ci alaaj sëñ Gueye loolee faju na waaye alaaj sëñ Gueye raay mu sedd jooyu ndek Cheikh Mouhamadul Faadal di doomi Xaadim Rasul moo ko tudde ndax keroog bi ñëwee Touba fekk boobu kër gi xaw a am nu mel lool alaaj sëñ Gueye sëñ sëñ Mouhamadul Faadal moo ko wax ko alaaj sëñ Gueye mun ko mbàkke mun ko fajal ma sama donga yi ndax moo suñ borom def na ci barke sa loxo yi loolaal mu loolaal mu baax waaye suñ borom defal na barke sa loxo yi ba loolaal mu sedd wax na ni keroog kër si ñax soxna su gaawaan keroog daa mel ni ak màggal ndax balaa la jéggee nekkoon waaye fenn fu nekk ne nit jógee ñëw foofee ci kër soxna su gaawaan soxna su gaawaan mooy nag ba gën alaaj sëngee lool ndax am na lu ko gaaran moom it waaye Cheikh Mamadou Faare moo ko boole wan ak alaaj sëngee keroog ba mu fa demee la loolee saafara moo tax soxna su gaawaan moom alaaj sëñ Géey ba gëmewu ko waxtu wu na mosaan a dugg Tuubaa boo laajte kër soxna su gaawaan nekk wala mu nekk kër sëñ Saaliw wala mu nekk kër sëñ Ablaat waaye mboolem kilifa yooyu daal ñoom ñoo ko daan daloo alaaj sëñ Géey doonan ku bëgg sëñ Tuubaa ci fànn yëpp ndax xam ne lu sëñ Tuubaa defal looloo waral mu daa waxtaan ci sëñ Tuubaa ba ñàkk waxtu wu nekk ki doomi Sëñ Tuubaa daan nañ ko woo di ko laaj Sëñ Tuubaa mu di leen ci leeral ndaje mun Moussa amit bu alay sëñ gi na ñëw mboolem kun musa fekk mu toogit dan la daan wax ne la toogal ba alay sëñ gi ñëw waaye bu ñëwee dan naan ko ko diglu ba waxtaan ba noppi bokk na ci kero bi jóge Kébé di ubbi jumaa jooju ci Kaolack kero bi sëñ Ablaat dikkee dafa wax ni sëñ Ablaat ci bopp moo sàkku ci njuga ni ko na alaj sëñ waxtaan keroog 504 bi nga xam ne moom la jóge Kébé yóbbuwoon keroog alaaj sëñ Guèye la ko jox alaaj sëñ Guèye it moo taxat ni mboolem njaboot sëñ Tuubaa gu jigéen gi jóge Kébé jënd leen leen ay oto ndax moom moo ko waxat ni ko su ma sañan de loo may defal ci teraanga da koy njëkkee ci njaboot sëñ Tuubaa keroog jóge alaaj jóge Kébé douzaine oto la jënd jox ko njaboot sëñ Tuubaa kon alaaj sëñ Guèye daal yàgg naa liggéey ci diine waaye yàgg naa liggéey ci ngor waaye yàgg naa liggéey ci taalibe waaye yàgg naa jëriñ doomu aadama yi loolu moo waral it nag kere bi fi bàyyi ko xol yi tiit nan xel yi lëndëm nan ndax keroog asamaan si mel na ni lu xiin ndax jàmbaar ji nga xam ne moo daan jëriñ ñu bari yàlla borom bi subhaana taala yóbbu ko waaye ndek booba yàlla mi ngi waajal jàmbaar ci biiri jàmbaar muy sëñ Seexuna mii tey ñuy xoole Alaaji Sëñ Géey keroog ci ab tukki la ko fekk ndax jamono yi mi ngi bitim réew waaye bisub keroog la kenn bitim réew ak lu aju daal di toog fii ci Badar suñ seexu naa nag moo yaatal Badar ndax ginnaaw bu mag ñi liggéeyee ba noppit nag liggéey bu nekk day am pas-pas pas-pas yi nag mooy suñ seexu naa ndax moo yaatal Badar moo ñimeloo mag ñi Badar waaye moo ñimeloo ndaw ñit Badar ndax moo toog Badar di wéttali waa Badar waaye moo toog Badar di xencu soxlay waa Badar di leen ko fajal waaye moo toog Badar it nag mboolem mag ñi nga xam ni ñu ngi fi te bëgg euh, sëñ Cheikhouna wéttali leen di yëkkati alalam di leen jox kon sëñ naa doon na koo xam ne la mag ñi liggéeyan ci barke waaye liggéey ko ci xam-xam waaye liggéey ko ci loolee sëñ Cheikhouna moom taal na ko kon ñu doon ko ñaanal nag yàlla yàlla guddal fanam te may ko ak wér te ko sàmm ba li mu yéene sa borom def waaye nag di mi nga xam ni mooy taaw alaaj sëñ gi te taaw mboolem njaboot ak alaaj sëñ gi bàyyam wóolu ko ba yu ko màkk waaye bàyyam wóolu ko ba bàyyi ko njaboot gi bu taxaw di leen wettali kon moom ñu ngi koy ñaan waaye di ñaan sëñ Moustapha Cheikh Mamadou Fall sëñ Baara sëñ Jiili ak mboolem njaboot gi ñëpp boobu kenn waaye njaboot gi jigéen gi soxna maam faam suñ ko tuddee daanaka mën nañ ni tudd nañ mboolem njabootu alaaj sëñ Guèye sunu waa ji mu seetlu gaay a ca baal wara jokku sant yàlla tey defu yoone waaw gaay a ca baal wara jokku sant yàlla danu dakas baray di sonli yo ko jogu ci bu dak gak gamu mine takbara asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di leen siyaara di leen balax di leen balax yal na yàlla boo leen jéggal waañ wii ngeen nekk nag mooy cosaanal ahlu badar fii fi la bàyyi sëriñ Géey Badar daan dajale taalibe yi bu ñu toggee ba pare fii lañ daan dajaloo bâtiment bi mooy cosaanal Badar Géey moom la fi sëñ bi jëkk a tabax si bâtiment mooy néeg ngay gis ni ñetti néeg yi ak saal bële moom la sëñ bi jëkk a fii si Badar Géey moom la sëñ bi jëkk a lu fii si Badar Géey bi ñu ko tabaxee ba pare ñun noo ngi fi commencé ñëw gàmmoo 92 bi ñu fi njëkkee ñëw noo ngi fi dajante ak benn jàngkat bu ñu daan wax Baye Omar Diouf booba sëñ bi bu masaa a dajale mu taalibe yi fii bu ñu gàmmoo ba pare day jël xaalis teg ay enveloppe yu bëri ku ñëw siyaara bay dem mu jël jox la nga yóbbu tey ji nag taalibe yi bari na tey ci xale yi ñoo xam ni wax dëgg yàlla xamuñu ko waaye ay jeexitalam moo tax tey ñoom ñi ñëpp ñu ne fi ah, bi nga xamee man mii tey ñu wax ak yow naa fanweeri at ak juróom-benn fanweeri at ak juróom-benn benn ci la def na ko man bu dee ci jaxale jox na ma lu ne defoon na ko kii daal yal na yàlla fayal ko yokk leen bu ki sumya ambalale ta ta jajanai dali lampi mbaaji leen la tambal ngeje naay daal lampi mbaaji leen bakke deri naar toogu yaa ngi nu dendal danu dalal tagar gi tay makke toogu yaa ngi nu dendal dandal danu dalal la makke yaa nu nandal ci koppi weer yi nga feeñal yaa di mbër waaw ndeysaan fii mooy waañu maam Fama Gueye Daaru Xuddoos waaw kër Matar Mbaye jànkat Daaru Xudoos kër Matar Mbaye jànkat waa gis nga ñi toog ñëpp waa kër waa waa waa kër ma Fama Gueye la ndeysaan ñun toogee bagage yi rafet na lool ndeysaan seen xol sedd na guy waa ndeysaan ndaxte day waañ woo xam ni ana bu jot rek nii lañuy def ndaxte maam Fama day nit koo xam ne rek loo ko defar rek ah, ah, doyut waaw di nit koo xam ne ku leme soog nit ki la ndeysaan mën naa doon seex boo xam ne bu ñëwee ah buñ ko nuyoo mu ne aju te deful loolu ndeysaan dafa danoo boole waaw boole nañ ci léppam boole nañ ci biir këram waaw man Ilimane Diagne mii ak ñoom day daba mii ak ak kii ñoo ñëpp xam nañ ko ndaxte magum jëmbu moo xam ne day wër di lijjante waa koñom ah di leen lijjante ak di dox ak mbokk kooku moom jar naa dimbali ñun nag dañuy dongo yoo xam ne ñun foo nu gis rek liggéey sëñ Tuubaa rek moo tax waaye keneen taxul lu sëñ Tuubaa ndaxte ndaw si daa neexut a fay Fama gi daa neexut a fay waaw kenn mënu koo fay ndax dëgg yàlla ndaxte bu ñu dëgg rek yàlla tax xolo xëy nuyoo rek doy sëkk ah xëy ndiñoo rek day na sëkk loolu la ñit di yëge ñit waaye de topp na ko ndoxam am-am déedéet topp na ko ndoxam jox-jox déedéet xam nga lu nga ko toppee sëñ Touba ak ba seexu baayam bii ñun nag danoo xam ne danoo yàgg waaw danoo yàgg day loo xam ne du tey waaw soxna si nag ñu ngi koy ñaanal ah ren defar nañu ay xar defar nañu ay nag defar nañu ay ginaar bu déwénee danoo bëgg ah déwénee bëgg mu doon ñaari gileem ñaari nag ak ginaar aki i xar loolu lañ bëgg ndeysaan ndax suñu xol dafa sedd waa ndax da soxna si mën fay waa nag li bëgg ci bàyyam bu baax yàlla na ko defal barke suñu borom barke borom barke borom barke jërëjëf Seexu Bamba Ahmad Xawsi Mbakke jërëjëf Ahmad Xawsi Mbakke jërëjëf Seexu Bamba Ahmad Xawsi Mbakke dongo nak Mbakke bala hëndi misikine Mbacke bal misikine Mbacke bal misikine Tawfekh ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax comme nen ko baaxoo di defe rek ci bis bu tedd bis bu màgg bi di mawlud màggalu badar di ñaan yàgg koo fekke te yàgg koo tal di ñaanal alxaaji Serigne Gueye suñu boroom yokk leeram te taaf na ci barkeem di ñaanal Serigne Cheikhouna Gueye mi fi toog place alxaaji Serigne Gueye suñu boroom guddal fanam te wéral ko ak magam yi mu ko àndal ak rakkam yépp ñu yàgg koo teewe ah ndax bis bi wax dëgg yàlla koo koo gis bis bi xam ni gën nañ koo jëmmal gën nañ koo jox wàcc waayam ndax wax dëgg yàlla Serigne Cheikhouna jàmbaar la joo xam ni lépp lépp luy taaral bis bi wala lépp lu muy def ngir bis bi jag rek mi ngi ci ànd ko ak ay rakkam yu baax ak magam yu baax yi fi nekk ànd ko soppee ak taalibe yi yëpp dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko barke Serigne Touba barke Alhaji Serigne Gueye di wax ni comme nin ko daan defee rek ko defee ànd ak waa daayira bi waa daayira Tawféexul Xadim Touba Koki Mayib ah nekk ci liggéey bi lépp lu ci war ñu ngi ci taxaw pour bis bi ndax bis bi jar na ko borom jar na ko ki ki ki sa sa bis bi jar na ko kon ñi ngi ñaan yàlla suñu borom defal nu jàmm defal defal gudd fan defal defal nu wér te Serigne Cheikhouna yàgg ci suñu kanam ba lépp luñ lépp fépp lépp luñ fas yéenee liggéey ci bis bi rek ñu defee ko nu kaay suñu jortu ñi ngi leen sant bu baax yéen waa Tawfekh di leen ñaanal ngeen yàgg koo teewe comme ngeen ko daan defee ay ati at yal na yàlla defal jàmm te leen Tawfekh te yokk leen ca kaw ca kanam ba ñu dégg média ñu dégg leen fa barka borom ba dat salaamaaleykum yéen waa daayira bi ñu ngi leen nuyu kenn ku sa tur ak sa sant ah di leen xam ne kontaan nañ ndax tamit yàgg nañ ko teewe ay déwéni déwén te ren jii moo ci raw ku gis daayira bi ni muy teewee xam ne daayira bi moom wax dëgg fa yàlla li muy liggéey lu mu gëm la te lu mu fonk la te luñ bëgg la quoi ndax tamit Serigne Cheikhouna Gaye Badar ñun ñi tàggat nañu tàggat boo xam ne si mënuñoo def lu gën a kawe liggéeyal Serigne Cheikhouna Gaye Badar kon dañuy ñaanal Serigne Cheikhouna Gaye Badar yàlla guddalu fanam mbéralu cëram ba li mu yéene liggéeyal Serigne Touba mu defee ko na mu ko bëggee ak waajuram bo ci barke Serigne Touba wax dëgg yàlla sant nañ leen gërëm nañ leen di sant ñi nga xam ne tamit amoon nañ yéene teew fii te bokk ci daayira bi te léegi ñu ngi ci di sonn ba jàpp bàyyiwugun benn yoon tout le ñu ngi toog di ñu woo suñu téléphone di ñu xool ni daayira bi doxee ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaanal jàmm ak xewal yéen ñi fi teew nag ñëpp muy président ba si ñëpp bàyyiwun kenn jigéen ñeeg ñëpp ñu ngi leen sant kenn ku di leen gërëm di leen xam ne kontaan nañ yàlla ñu ko fekk ay déwéni déwén ci barke Serigne Touba. ku koy maam jigéen boo yàlla wara jëriñoo bay bandinde boo yàlla noo bay bandinde maam jigéen boo yàlla jëriñoo bay bandinde yàlla nu jëriñoo ni booy maam soxna jaara maam Cheikh Mountakha Mbacké jigéen ñu boo yàlla wara jëriñoo asamaaw set na ku jóg màggal soxna jaara yàlla nga fekke déwén jóg leen màggal ah, maami sëñ Muntaxa rabay ba dindin jigéen ñu booyal naanu rabay ba dindin ñu booyal naanu amoo morom mam jigéen ñu booyal na lay la lawoo lay la lawoo lay la lawoo gaba yi ba dindi yéen ñu booyal na gaba yi ba dindi booyal na noonu bu su jaara paamam jaara ko am jaara moo ko faral so doon nga baal day karaama mam jara am morom de asta am morom day soxna jaara jaara mam jaara ko am jaarama yaa ko waral sa doom day karaama karaama mam jaara bu sa am moroom yaa ko waral ku sa baal jaara man jaara ku apakaama yaa ko waral keroog keroog bisub xiyaama ku amakaama yaa ko waral keroog ñëw fii ci Badar ci gàmmu gi ànd kook soxna Ami Guèye suñu séeri euh, lii nag couscous la bu ànd ak sauce accompagné ak créditém euh, di wax ni gàmmu gi nag neex na macha allah. si Badar gi rek xëy na dañoo gunge suñu nawla bi di musi waaye suñu mag dañ suñu yaay dañ ci fekk si bii ay ginaar la moom lañ tiim nii ko nii macha allah mis en tout cas xéewal yëpp moo ngi nii dara manqué wut. dañuy ñaan nañ ko fekkee ay déwéni déwéni déwéni. waaw asalaamaaleykum bi ñu dépassé foofu nag ñu ànd ak euh, ajaratu Ami Guèye taaw Alaaji Sëriñ Badar kenn ku ne xam ni ma sonn ci Badar lu xew mu dagg ay yitteem ngir Badar rek ñor ko ànd ak accompagnement mi xaritam yi li ma ko wax sànq rek Adja Ami ay bokkam ñoo ko dar olof jaar bu nee nit di baax naa ndax bokk yaa ko wax euh, ñu toll fii nga xam ne mooy gis nga miche bi bi ñu doon ginaar yi ñu ngi toll ci miche bi ubbil ma fii lii ay pison la lépp nag bëgg baayam bég rek ak bokkam yi bég dañuy jot ngaan moo tiim pigeon yi mu wax lan moo lan moo waral li ak nan la demee. Euh, li ko waral mooy bis dafa nekk bis boo xamante ne nekkul bis boo xamante bu ñu wax doomu aadama ñëpp ko xam. lii nga lan la. ay teraanga lii mooy pigeon. voilà baax loolu ci doomu aadama di dooli feer dëgg la. bokkam yi ku war say bokk wuy si la say xarit ñëw ndax sa jikko ndax sama baay def na judd boo gis jikko koy couleur waaye bu dee mu dem def def la saañ bay xeeñ boo amoon beneen jikko la wuy waaye tey mos yow nii nga noo ko gis ñoo jàngat affaire bi tey waaw salaamaaleykum ñu gunge suñuy xarit rek ñoom ñun duñ ci dara la ginnaaw dooleel ba tax ñu ñemee def lii ñu bokk bis bi nag waaye lépp luñ ci def rek moom lañ ko jàppale mënuñoo wax parce que dañoo sori ci moom macha allah lii nga tiim lii nga tiim macha allah ay koppin la te bi nga koy choisir ni dinaa dressage ba def ay koppin sa mag ju baax jii di ajaa Ami Gueye bis bi loo ci rek xeeb nga ko loo choisir xeeb nga ko lii nga def ni innovation laa la tuddee soo ba tey moom laa lay wax macha allah defoo daray loo jaxasoo nga jël sele bi def ko nii jël sucre bi def ko nii lii nga tim mooy copine yaa ko choisir copine yaa ngi Ali euh, ku taxaw ak soxna Jarbaat euh, Absalo euh, mi ngi taxaw nii ci kanam dend ak tantam ci xar yi ba tey jox kàddu gi mu soxna Assa bisimilah. asalaamaaleykum maa ngi leen di ngi fii nga xam ne mooy Badar Gueye dëkkub allah gi Serigne nag ñoo ngi fii ci soxna Adja Ami taaw borom Badar macha fii dara manqué wu lépp mat na lii ma tiim nii ci xar yi la bokk rek ci mbis bi. ci Miss wi la bokk ànd ak ay crudités nag accompagner ko ba mu baax gan ñu lu waaye bëgg rek am na choisir leen rek loo leen bëgg rek am na ci bis bi. yaay choisir am na pison am na copine am na xar am na ginaar yaay choisir chef laa lañ tuddee bis bi mënul yomb. soo aada noo gis ñoo bokk baay noo gisee bis bi. waaw maa ngi sant bu baax bi ma dellu si waat tey si Badar Gueye di sant soxna Ami géey wax fa dëgg yàlla mag bu baax la mag bu ñu yërëm la mag bu ñu mën a digal lu baax. bisam bi nii rek la mën a mel moom macha allah soxna Ami Guèye moom booy wax si moom di fi ngay fanaan lii jomm ko ñoo ngi koy ñaanal déwén incha allahu rabbi yàlla na mën lu ko raw yàlla na doon ay tant tant yàlla na ko fi yàlla bàyyi sunu kanam yàlla sàmm ko aar ko musal ko mujjal ko barke Cheikhul Khadim loolu lañ koy ñaanal soxna Ami Guèye daal moom eh, nañ ko ñaanal gudd fan gu ànd ak taw feex rek. mais bi nga ñëwee bis bi yow loo ci yëg. ah mbégte ndaxte sunu papa ka daan def bu fekkonte ne luy dellu ginnaaw la euh, kon tey jii kon Badar kenn du ko xàmmee. kon soxna si yow loo am le cadre sa Adja Ami Gueye mi nga xam mooy sa mbokk sa lépp. maa ngi nuyu mbooloo mi di sant sunu boroom di sant ñi fi nekk ñëpp itam soxna Ami mii nag yàlla dogal na mii ne tew maa moom man tey jii mooy sama ñaareelu ñëw Badar mm-hmm. waaye rëccu moo ko te damay ñaan yàlla di fi ñëw yooni yooni yoon yëpp fekk fii ñëpp. kenn bañ a manqué di ñaanal itam naa mii xalifa bi yàlla bàyyi ko ci sunu kanam guddal fana may ko wér ak weer wér ak njabootam soxna am bi mii nag man li ma ko li ma gis bari daal wax dëgg yàlla maa ngi ñaan yàlla yàlla bu ma ko manqué ti ndax li ma fi gis doy na ma te dëgg rek a wóor taxaw nekk ci wàllum fruit yi nga xam ne ko xam ne ku ku añ ba pare xam nga gis nga plat yi ni gone yi defar civilisé nga sew yi gis nga ni ga gars taal noonu nga xam ne lu am solo la kon yow soxna si ngay wax ci la ju ci lii waa salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi ziar ñëpp euh, di nuyu ñi fi taxaw ñëpp bàyyiwuma kenn parce que Mousty nag moo ñu fi indi suñu xarit la mu doon nit ku baax ndax jàppale na soxna Ami bu baax a baax a baax man maa ngi ci wàllum dérese bi wàllum euh, fruit wi ndax ku lekk da war a déchiré wu dëgg neexul ñu nekk yéen ba ngoon. waa salaamaaleykum ba tey ñu continuer ak yéen rek ba tey ñu ngi génnagun ndindi ba tey ñu ngi ndindi sëñ Fallou. aj soxna Ami Gueye mu sëñ Fall taxaw nii ñu nekk nii ba tey kon soxna si yow lii nga tiim lan la nii ak lii nga taxaw yu rafet yi plat yu rafet lan la salaamaaleykum ñu ngi nuyu mbooloo mi di leen ziar di ñaan yàgg koo teewe ay déwén table bu ñu taxaw nag ñu ngi leen di présenter ay jus naturel yu neex lool sell te ay jus plateau salé yaa ngi nii fruit yaa ngi nii macha allah lépp a ngi fi ngeen ànd ko ak waa Bilal tracteur ñu ñëw jàppale soxna Miss bi ci bis bi rek. xale yaa ngi xam lu baax di ko def importé wuñ la lépp fii lañ ko defee mu ñëw. waaw euh, Pape ba bu Adja Ami Guèye ne bu nu filmé dressage bi ba nu dem ci fin bi nga ne ko kaay tëj mun la soxna Sali Mbaye may tëjal dama ciy sawar macha allah tubaarkàlla ba Badar xale yi nag dañ koo jàppale waaye nag xale yi jàppale na ku bàyyam gërëm. ku bàyyam ñaanal ku sa bàyyi gërëm di la ñaanal ñaanal la la paas màgg kooku ko macha allah waaye nag dafa am caatu yaayam bu bu jàmbaare koy woowee Mousty Gueye tubaarkàlla macha allah lu mu def ci bis bi da xeet. ba tey ñoo ngi fii ci waa ñu ajaratu Ami Gueye mu alaaj Sëriñ Gueye di taaw alaaj Sëriñ Gueye Badar di jàmbaar ji nga xam ne baayam daf ko wóoru woon ba yëkkati waañ ji jox ko ko euh, diiru waajuram ne fi waañ moo ko daan wa ànd ko ak ay waajuram yu jigéen yi ba yàlla borom bi subhaanahu wa taala dogal waajuram yi dem waaye foofee ko waajuram bi tegan ba léegi ca la nekk gis nga nii mu def ba mu xëyee ba léegi ca fajar ba léegi mi ngi toog lépp lu ñuy def mu ànd ko ak ñoom ba bis bi bis bi sotti bis bi nag nin ko waxe day bisub njariñ boo xam ni kenn ku ci nekk ni ci alaaj sën Gueye doon def da nga am yéene def ci lu ko raw looloo waral bis bi waxtu wu nekk muy gën di màgg waaye looloo tax poste bi ñu gën di dooleem waaye looloo tax kenn ku ci nekk balaa laaj sëñ Gueye tegaan ñaan yàlla mu yokk waaye ñaanoo yàlla mu wàññi waaye jàmbaar ji nga xam ne moo fi nekk ban xëyee ba léegi fii ci wàññi mboolem jëwa seexul xadim ji fi وسبعلي داندي ويلا نو رب بدي باكي باي كات كباي بايو يا ديندا لا لا لا لا يكني بو يا نو غباي بني باي باي كات كباي غبايو باي يكني بايو soxna si tëkkaleel ak yéege maam soxna jaara aram illa ni yàlla ki yàlla laa jigéen maam soxna jaara xona aram yàlla yàlla maam tëkkaleel ak yéege maam soxna jaara waaye ma feggoog kenn ci njabootam ñu duppee ko Serigne Saliou Mbakke borom got borom jàpp ndal borom ndoka borom xabbaan borom njurul borom njawaan gi a borom géejaan kii di Serigne Saliou moom la El Hadj Serigne fay Serigne Saliou doxale digganteem ak Serigne Saliou Serigne Saliou Gueye gi nii toog. waaye lépp lu ñu tudd di tudd Serigne Touba Alaaji Serigne Gueye taalib Serigne Bamba ba na ci doomi sëriñ Touba joojee kookumu bëgg Serigne Touba bëggam Serigne Touba dem na ba doomi Serigne Touba ju ñuy tudd tudd na ko doom waaye loolu du mu jëlaat bis doom ju baax ji xanaa xamu ni fi mu ne ba léegi. fi ne El Hadj kondir Latin gi ba léegi mooy kondir laa yam na allaka bu'dun min ziyaarati illa al-muhiba wa huzawa